yooyu yépp suñ borom am na lum na ci may loo xamante ni ku am ndoxum siti walla émorite wala ndigg luy mitti wala wet wala ay ballonnement feebar yooyu noonu soo ñëwee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dañ la koy fajal ba mu wér waaw tawat joo joo xamante ni daaneel na nit mu doon tawat nii rek ci kattanu yàlla bu ñëwee ñu jëflante ci incha allahu rabbi moom bu doon dañ kuñ jàppoole indi ko fii buy buy ñibbi moom mooy doxal boppam loolu yàlla may noonu ko moom waaw. Mm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw waaw yee ku ci ñëw ndax man yàlla dogal na moom lu may wax rek day leer fii ñu toll nii maanaam euh, nit ñi am na ci ñoo xamante ni boo yàggee jëflante ak ñoom buñ seetaanee dinañ xam ni kii li muy wax nii am na fu ma jaar moom ndax euh, ñun li ñuy li li nga xamante ni moom lañ ciy def yàlla lañ ci jiital ba tax nañu di ko def duñ wax nit mukk lu nu mënul waaye feebar bu dal nit wala nit ku am jafe-jafe ci àdduna nit koo xamante ni da nga am sa jafe-jafe ci àdduna wala nga amoon alal lool sa alal jëpp yàqu nga daanu niñ koy waxee ci kàttanu yàlla boo ñëwee dinañ la sang faj la defar la ba nga taxawaat incha allah waaw message bi mujj moom mooy euh, fii daal ñu nekk nekk fii ci maris bari na ñoo xamante ni daal ñi ngi fii ñëw yàlla xam na ni bu nu génnee sax nit ñi dañ ñuy song ngir li ko waral mooy yàlla li mu def ci ñun ndax yàlla mooy may ab jaamam waaye kenn ku nekk yaa nga barab ba nga nekk ay nit di la fa fekk waaye fii moom ku fi ñëw boo daan dem fenn nit yaakaar naa di nga ko bàyyi ndax maanaam dañ lay wan nga gis fii waaw fii moom li li fi nekk mooy wan la nga gis nga loo xamante ni danga nga teg sa bët nii jëxëran amul ma dem te ñëw waaw jafe-jafe yu nit mën a am ci àdduna wala ay gàllankoor lu mën a doon ci àdduna da nga koy am dana liggéey tamit ndomba goo xamante ni moom takkatil leen koy wax ndomba goo xamante ni ku la tiire pistolet du tàkk waaw ndomba goo xamante ni ku yor ngànnaay jëmale ko ci yow moo xam fetal la wala jaasi wala paaka lu mën a doon incha allah du agsi ndax jamono jii ñu toll ni eh, ñiy def ñaawteef dafa bari waaye nit faw nga aar sa bopp loolu boo ko yoree ci kàttanu yàlla bu ñu la ko joxee nga takk ko maanaam fu la neex xuusal dem ba fu ay bomb doon tàkk sax incha allahu rabbi kenn du na mënal dara te foo tukki ci àdduna di nga dellusiwaat ci jàmm ci kàttanu yàlla. Mhm. baaw ku ma contacté ci numéro yi incha rabbi dina ma fu waaye mën a nekk ci àdduna boo ma woowee bëgg a xam sa mbir wax ma sa sa tur sa lépp incha allah buñ la ko les si xaaralee wala ñu seetal la ko dinañ la wax li ne ci yow li nga war a def lépp ñu wax la ne la léegi lii ngay def nga xippi say bët nag di xool waaw waaw kon euh, sant nan bu baax a baax tey gërëm euh, di tàggatoog euh, mbooloo mi di ñaan yàlla na yàlla faj aaju yëpp rek yàlla def ci réew mi jàmm Euh, ak sutura ak nataange ak xéewal jërë ngeen jëf. jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew wala si biir réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo ngir mën xam li xam ne